asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu lii ñuy dund te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom TV ca kaw ca kanam a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi was salatu was salamu ala man asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi gannaaw bu ñu santee bur yàlla subhaanahu wa di julli ci ngën ci bindeef di ñaan borom bi subhaanahu wa mu defal ñu tawfiq di ñaan borom bi subhaanahu wa taala lépp loo xam ne barke alquran la yàlla ko wàccee si ñun ak ci àddina bi yépp yàlla na borom bi subhaanahu wa taala teggi jafe-jafe yeeg jàngoro bi nga xam ne moom moo lëmbe àddina yàlla na ko borom subhanahu wa taala teggi ci barke alquranul karim di euh, fa yéene delluwaat ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moom la ñuy tuddee ak tadabbur ñu euh, baaxoo di ko bokk ak ki nga xam ne mooy suñu sëriñ suñu xarit sëriñ Mbàkke Silla nga xam ne dafa tukki incha allah du yàgg mu delluwaat euh, ci jotaay bi incha allah ñu sequ comme niñ ko daan seqee tey nag mbokk ñu bëgg waxtaane ak li nga xam ne moom mooy kay asalaamualeykum wa rahmatullahi barakaatu mbokk yi bàyyi xel Ali Imran TV di ñu topp ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission at tadabbur a ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole yi ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquraanul karim Ali Imran TV lay amee ay bis bu jot seen mbokk Mbacke ci ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk alquraanul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb net li ñu lii ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haadha al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhaanahu wa taala ci Ali Imran TV ca kaw ca lii nga tiim o li nga nekk di tadabbur di ko di ko méditer du waxu maana euh, doomu aadama du waxu mbindeef waaye waxu borom bi subhaanahu wa taala la moo tax boo demee ci alquraanul ci suratu namli surat numéro 27 borom bi subhaanahu wa taala di wax ni wa innaka la la tulaqa alqurana min ladun hakimin alim naa xam ne alquran bi nga xam ne moom ngay taataan di ko déglu di ko méditer yaa ngi koy ci ki nga xam ne xakiimun waaw certes que tu tu reçois le Coran comme ni ko tubaab bi waxee waaw de la part ki nga xam ne moom mooy ab sage la maanaa xakim muy suñ borom subhaanahu wa taala alim ku xam la d'un savant waaw loo xam ne moom xakim la lu mu def rek nam ko defee noonu la waaw la mu teg rek fa mu ko teg foofu la waxtu ba mu ko defee rek waxtu boobu la waaye tamit ki ki nga xam ne maanaa lépp luy xam-xam moom moo ko dajale amul lu mu xamut wa huwa bi kulli shay'in alim kon alquran bi nga xam ne moom ngay recevoir moom nga nekk di médité nga yëg ne nga xam ni nga jàpp ne waxu borom bi subhaanahu nga nekk di médité te kii méditer waxu borom bi subhaanahu wa war naa xam naka la ko war médité ñaareel bi moom mooy alquranul karim borom bi subhaanahu wa taala daf ñuy wax ni suñ koy jàng nañu ko déglu waaye buñ ko dégg waaw ndax dafa am différence diggante dégg ak déglu ak teewlu te dinañ ci ñëw boo demee ci alquranul karim ci suratul aaraaf muy surat numéro 7 borom subhaanahu wa taala dafay wax ni mu ne nii euh, mu nekk aaya boo xam ne képp koo xam ne rek yaa ngi dégg alquran war nga ko bàyyi xel borom subhaanahu wa taala di wax ni وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون gis nga bu ñuy jàng alquranul karim yow mi bëgg a méditer maanaam settantal alquranul karim tadabburul quran yàlla mi ngi wax ak yow mi ngi lay jox ay clé yoo xam ne day tax nga mën a bokk ci ñi borom subhaanahu wa di yërëm ñu muy muur yërmandem maanaa yër maanaa euh, xéewalu alquran di wàcc si ñoom ñi ciy bénéficié wu waaye tamit trésor yi nga xam ne ak li nga xam ne moom mooy xam-xam yi ne ci alquran ak secret yi ak mbóot yeeg barke yi ngir nga am ci nga jot si yàlla mi ngi lay jox ay solution si njëkk mu ne bu ñuy jàng alquran rek mu ne fastamiu lahu waxul fasmau lahu ndax dafa am différence diggante as samu ak li ñuy wax al istimaawu ak al insaat su ma ko doon firi ci olof mun naa ne dégg ak déglu ak teewlu waaw benn bu si bokkul moroomam ñit dina dégg waaye du déglu waaw bari na son ak bruit yi am ak kàddu ak mbir yi bari yi am autour de toit fi nga nekk bërëb ba nga ne ëtt ba nga ne waaye yaa ngi koy dégg mais dégluwoo ko kon yàlla neen alquran nag moom mu ne suñ koy jàng rek suñ koy jàng mu ne fastamiu lahu na ko déglu waaw waaw gis nga prêter luy l'oreille loolu la wax fastamiu lahu waaw attentivement nag mooy nag ñaareel mooy wa ansitu waaw la ansitu mooy observer le silence waaw mooy na nga teewlu kon kii dégg mën naa bañ a déglu waaye kii déglu moom kooku mu ngi dégg ndax munoo dégg déglu te déggoo kon dégg bi tamit maanaa déglu bi ak teewlu bi tamit mun nañu am différence différence bi moom mooy lan mooy yow génn nga ci dimension wu dégg yaa ngi ci dimension wu déglu waaye yaa ngi déglu waaye yaa ngi am leneen looy defaale mais yaa ngi déglu yaa ngi koy bàyyi xel waaye waa ansitu teewlu bi mooy lépp ngay bàyyi da ngay ne cell bàyyi lépp détaché wu ci lépp di déglu kàddu borom subhaanahu wa taala yàlla naan taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadkiratan liman yaxsha ngay déglu taaha ngay répété ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadkiratan liman yaxsha donc déglu boo xam ne day ànd ak teewlu loolu moo lay ubbil buntu méditation maanaam buntu settantal tadabbur waaw koy ubbil directement kon boobaa moo tax borom bi subhaanahu mu ñuy jox benn résultat boo xam ne jinne yi am nañu ko gannaaw bi ñu déglu alquran teewlu alquranul karim suñ borom subhaanahu wa muy wax ci suratul ahqaaf ne وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم yàlla na gis nga bi ma yebalee ci yow ab kuréel ab mbooloo ab groupe ci jinne yi jinne yi la yàlla di waxal de yàlla yebal la ñu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ ñëwee nag lan la ñuy def yastami'una alquran gis nga ñuy di déglu alquranul karim di ko déglu qaalu fa lamma xadaruhu bañ demee nag ba teew ba agsi si jotaay bi lan la ñu wax ñoom jinne yi qaalu ñu daal di waxante seen biir ansitu teewlu leen waaw teewlu leen waaw observer la silence teewlu leen bàyyi leen li ngi def lépp ne leen cell waaw kon nag ba ñu defee noonu nag ba ñu ba ñu dégloo teewlu a si lañu xam dëgg dëgg dëgg dëgg vérité message bii nii xam dimension message bi nga xam ne moom lañ jot falamma qudiya moo tax bu ñu paree rek ñoom xam nañu lu xew wallaw directement la ñuy dem nekk ay ay ay ay prêcheur nekk ay ay ay ay wootekat nekk ay ay ay ay ay ay ay observateur waaw wallaw ila qawmihim mundirin dem commencé waar di avertir di wax ak seen i nit seen xeet waaw lan la ñu wax qaalu ñu daal di wax inna sami'na kitaaba ñun jinne yi da ñun ñii sami naa dégg nañu kitaaban ab téere boo xam ne euh, unzila mi ngi wàcc min baadi Muusa waaw unzila min baadi Muusa mi ngi wàcc gannaaw yeneen ci yàlla Muusa gannaaw tawraat waaye musaddiqan li ma bayna yaday waaye dafa ñëw di dëggal di renforcer li nga xam ne moom la ñu yore nii actuellement moom mooy al injil muy injil nga xam ne alquran dafa ñëw dëggal tawraat dëggal injil waaw résumé tawraat ak al injil ak ak euh, euh, zabour mooy alquranu karim ñëwul weddi téere yi ko jiitu ñëwul weddi yeneen yi ko jiitu déedéet waaye même kii bi la rek moom cheminement bi la waaye téere bi mu ne yahdi ilal xaq yahdi ilal xaq yaakaar naa kenn ku ne su ñun dëgg ngay wut dëgg ngay wër fu dëgg féete fa nga war a féete ndax dëgg rek moom moo jara wut mooy lépp kon nag téere bi képp koo xam ne dëgg rek moo tax nga koy nga nga ngay ngay ngay ngay ngay ngay jóg bu dee dëgg rek nga soxla téere bii de moom yahdi dafay la dafay gingi fan la lay yóbbu maanaam ci dëgg comme ni ko sëñ Mbàkke di waxee toujours di ko répété ci aaya boobule ci suratul isra ne inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam gis nga kon yoon bi nga xam ne moom rek moo jub alquran ci la lay teg kon yahdi ila al wa bil haqqi anzalnaahu wa bil haqqi nazal kon ci loolu rek la lay tënk waaw wa ila siratin mustaqim ak yoon boo xam ne ligne droite la waaw chemin bi moom autoroute la boo xam ne waaw da ngay da ngay xotti di dem rek amul benn obstacle amul lenn loo xam da nga ko ciy ragal muy yoonu alquranul karim kon looloo waral gis nga borom bi subhanahu wa taala muy waxaat ci suratul jinn ndeysaan قل أوهي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا li alquran yéem jinne mooy dañ koo déglu dañ koo teewlu dañ koo médité dañ ko tadabbur dañoo def taxaw seetlu boo xam ne ñaar la mooy dañoo def al istimaaw ak al insaat dañoo déglu ba pare teewlu kon yow mii nga xam ne da nga bëgg a tadabbur alquranul karim da nga bëgg a méditer alquranul karim ay kelee ngi nii yoo xamante ne alquran moo la ko jox borom bi subhanahu wa taala moo la ko joxal boppam soo ko defee rek bu ko defee na message bi dafay jàll euh, bi si mujj moom mooy fi ma ubbee sànq mooy bul mës a foog ne alquran méditer ko gëstu ko tadabbur ko dafa am ñu ko moom ak ñu ko moomu alquran méditer ko moom ñépp ci bokk yam moo tax yàlla waxul afala yufassiruuna al quran déedéet dafa ne afala yatadabbaruuna al quran xam nga at tafsir da ngay ñëw firi waaw baati qaala allahu taala yàlla nee na bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin cant ñeel na yàlla borom mbindeef yaa ngi tafsir di dem bu lee la neexee nga tuddee ko charx euh, euh, firi bu la neexee nga tuddee ko tawdix mooy leeral waaye tadabbur moom tadabbur résultat bi muy jur ak tafsir bokkul tadabbur résultat bi muy jur mooy day roof si yow ngëm yàlla day roof si yow imaan day day dalay yokk li ñuy wax euh, maanaam quwa ruuxiya ak li ñuy wax aqliya muy zihniya maanaam force mentale la lay jox force euh, spirituelle la lay jox booy def tadabbur beneen li moom mooy da ngay am yëg-yëg ak gis-gis yoo xam ne ak xam-xam boo xamante ni bi Buxaari amu ko woon démb waaye ki nga xam ne moom moo firi euh, alquran muy ibnu kasir amu ko woon démb ibnu taymiya amu ko woon démb mag ñi nga xam ne yëpp dañoo waxoon ci alquran dañ coo gis woon def si seen effort amuñu ko ci woon parce que effort personnel la loolu mooy li nga xam ne moom mooy résultat wu tadabbur mooy soo nangoo tadabbur alquran bañ cee xeeb sa bopp li la yàlla may ci xel ak ak li nga xam ne mooy capacité yi nekk ci yow nga nangu ko développé bu ko defee di nga ci am loo xamante ne bii keneen du ko ci am parce que alxuraan géej la boo xamante ni kenn ko ne dee ñëw rek tànk rek waaw tànk rek te la muy tànk du bokk ak moroomam la mu tànk waaw te kenn du ne géej jaa ngi nii daal xajal ma ma tànk waaye wala jëlal euh, cinquante mille litres nga bàyyi ma man tam beneen dix litres wala beneen vingt litres déedéet géej gée ngi nii océan bi onze million kilomètres carrés la kenn mënu ko jeexal profondeur bi ay kilomètres kilomètres la Euh, alquranul karim ngir tadabbur ko dafa am lu mu laaj mooy ñu nangu ko déglu ñu jël suñu temps maanaam bu ñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy lire alquran rek objectif bi nekk am fukki hizib par bés wala euh, am ab kaamil ci semaine bi wala ci 6 jours wala ci weer bi nga am nangay kaamil déedéet du loolu kese waaye objectif bi na nekk loo xam ne yenn saa yi da ngay toog jël benn laaya wala ab saar nga toog di ko jàng di ko déglu di ko teewlu di ci xalaat di ci médité di ci euh, maanaa gëstu bu ko defee di nga ci gis loo xam ne keneen du ko gis parce que alquran dañ ci dimbalante dama ciy xam un yow nga xam si deux kee xam si trois kee xam si quatre ñu daal di boole du doole boo xamante ni benn nit rek wala benn mbindeef rek moom moo koy seq kon nag alquranul karim borom bi subhanahu wa taala moom moo ko clarifier moom moo ko faciliter moom moo ko harmoniser moo tax mu ne wa fassalnaahu tafsila moo tax mu ne wa laqad yassarna alqurana liddikr moo tax mu ne wa rattalnaahu tartila kon yii yëpp euh, fii ak gëstuwuñu alquranu karim fii ak médité wuñ ko rek fii ak teewluwuñ ko duñu mën a am bunt bi nga xam ne moo ñu permettre ñu am li ñu soxla kon borom bi subhaanahu mooy ki nga xam ne moom moo ñu baaxe téere bi bu ko defee nag mu nekk suñu kàttan nekk suñu force nekk suñu lépp muy aay bi nga xam ne ndeysaan suñu xarit euh, sëriñ euh, Fadal bëgg na ko lool mu nekk ci suuratul al anbiyaau euh, mu nekk aaya boo xam ne kenn ku ne war na ko bàyyi xel borom subhaanahu wa muy wax ni laqad anzalna ilaykum kitaaban fiihi dikrukum afala taaqiluun borom bi subhaanahu wa taala muy wax ni naa ne wàcce naa ci yéen ab téere boo xam ne seen force yëpp ci la nekk seen teraanga yëpp ci la nekk kon sama mbokk jullit góorgóorlu bu baax alquran a ngi nii bu ci maanaa xañ sa bopp dara jàppal ne alquran yow rek yow yaa ko moom jàppal ne alquranul karim la ca nekk da nga ci war a jëriñu te da ci war a am ndax alquranul karim mooy téere bi nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala barkelal mu ne mubaarakun kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun wa haada kitaabun mubaarakun fee mu ne wa haada kitaabun anzalnaahu mubaarakun yàlla nañu borom bi subhaanahu wa taala boole si ñooñu alquranul karim yi fi may jeexale nag moom mooy fexeel bu bés bi comme ni ma ko waxee keroog rek nga am ci benn kudd nga am benn kudd ci alquranul karim bés bi moom boo xëyee mosal benn kudd boo gontoo mosal benn kudd boo xëyee moom fexeel ba am dara ci alquranul karim bul xañ sa bopp yiw li bul buñ sax xañ sa bopp trésor bu réy bii nii alal bi nga xam ne moom la la borom subhanahu wa taala jox muy alquranul karim kon borom subhanahu wa taala ñuy ñaan may ñu dégg ak topp di ñaan borom subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq euh, lii lenn la rek ci li nga xam ne moom mooy méthode bi nga xam ne suñ ko euh, appliqué ñu jëfandikoo ko rek dinañu mën a tadabbur alquranul karim maanaam dinañ ko mën a settantal te émission bi loolu lañ ko tuddee mooy émission ak tadabbur mooy settantal muy méditation yal nañu yàlla may dégg ak topp di nuyu di ziar bu baax euh, suñu sëriñ suñu xarit ba tey Cheikh Mbacké Sylla nga xam ne moom la ñu wuutu fii ci place bi ndax moom lañ doon bokkal jotaay bi waaye mu tukki ñu ngi koy ñaanal borom subhaanahu wa taala mu nekk safaran qaasidan safaran laymuunan mu nekk safar boo xam ne Eh, ay naataange ay yokkute lay doon ci moom ak expérience bu baree bari bari si jiwee ñu bokk ak moom wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu xel Ali Imran TV di ñu ci internet bi ñoo ngi leen di nuyu seen émission at tadabbur émission bi nga xam ne. ci la ñuy waxtaane alquranul karim téereb borom bi subhaanahu wa taala afala yatadabbaruuna alquran seen émission a tadabbur ngi noonu di tolloog settantal ñu xoolaat téere bi waxtaane ko nuróole ci nekk njàngiin yi ci nekk njàngat mi ci nekk topp alquranul karim Ali Imran TV lay amee ay bis gu jot seen mbokk Mbacke Sylla ngeen ciy àndal ànd ak imaam Aboubacar Traoré mu indi ay njàngatam ci téere bi mbokk yi alquranul karim suñu dund la moo ñu netti la xewoon démb nett li ñu ñuy dund tey te moo ñuy wax la nar a xew ëllëg inna haadha alquran yahdi lillati hiya aqwam topp leen ñu ñu ànd settantal téere borom bi subhanahu wa ci Ali Imran TV ca kaw ca kanam